Euh, dal leen jàmm ci xibaar yéen nga xam ne rek moom la xëyandoo ñu daal koy door ak lii yéen dina xamal ne ji a ñàkk a coow loolu moo dox seen diggante maître Assane Dioma Ndiaye loolee mën naa andi ay jafe-jafe diggante mag askan wi maître Ousmane Seye ni jamono ji lii nga xam ne rek moom la ñu lu ñaaw la tey nag dañ cee war a jóg kekk jamono joojee critique yéen dina xamal ne mbir na lool di tuumaalante gii nga xam ne rek moo dox ci a wullee ñaay Sud Quotidien yéen kaay dina xamal ne jamono ji kay attekat yi maanaam daal tool lii nga xam ne rek dox na ci diggante Amadou Dia ak Ousmane yéen kaay gi duñu xam ne jamono ji kay njiitu réew mi Macky Sall moo ci war a jël ay dogal yéen bi duñu xam ne nag maanaam daal boo moytul solo yéenekaay kaay gi duñu xam ne maanaam daal tuumay ger yi nga xam ne dañu ko teg ci ndoddal Ousmane Kane fekkee ne dëgg la am na lu bëri loo xam ne rek mën na ko jeefe am na loo xam ne des na ko topp ci wàllu on laas yéene kaay yi duñu xamal ne a xew daal mbir yi ma ngay gën di wulee ñaay ca jamono jógee yéene kaay bi di l'observateur duñu xamal ne moom am na yu bëri yoo xam ne mi ngi koy xaar ci réewum Sénégal yéene kaay gi duñu xamal ne xoolal coowal magistrat war na ko lijjanti waaye tamit wàllu wér-gu-yaram wàllu njàng meeg njàngale mu jëm ci wàllu ko dem beeg bi moom jiitu réew war na koo xoolaat bu baax vox populi yéene kaay duñu xamal ne Babacar Diagne moom moo jiite sénérad yi nga xam ne rek yëkkati na ko moom lañ cay amal yéene nga xam ne rek ñoom moom kay lañ koy tuumaal moo di caxat rek moo nekkee daal cay jël ay dogal Dakar Times yéene kaay duñu xamal ne ba moytul kay li nga xam ne rek moom moo di xewoon ca Bayrout maanaam daal tàkk tàkk safara suy jax-jax yi ma nga yoot caare sur mer ndax de lu toll ci juróomi tonn yoo xam ne mën naa jëf-jëfi ma fa ca jamono jojee les échos yéene kaay di xamal ne soldat yi nga xam ne rek ñoom ñoo kàddu yi nga xam ne rek yëkkat nañ ko jaaxal nañu bëri ñoom soldat yi nee nañ ñetti at la toog ca nguur ga dooga la amal ay élection yi nga xam ne moom la amal la bëgg moo di nguur ga ñu daal di koy joxam militaire tey nag bu ñu formé kaay dinu xamal ne moom kay jamono ji kàddu yi nga xam la rek jamono jooje sursoa yéen i kaay di ñu xamal ne jamono ji nag tolluwaay covid 19 gi ci réewum Sénégal ma yi nga xam ne rek am ñoom ñoo di rebelle nekke ci MFDC yéenekaay gi duñu xam ne am na benn sénégalais itam boo xam ne faatu na ca Gabon Kaffrine am na benn xale bu góor boo xam ne itam oto moo ko fiir yéenekaay gi duñu xamal ne ci kenn xam ne kay moom moo faatu ci anam bu jaaxal ñëpp moo di Cheikh Kane yéenekaay gi duñu xamal ne mbir ya kay ma nga xewee ca Tiwaawoon moom Cheikh Kane moom dafa faat benn soxnaam boo xam ne ay atam tolloo ci ñaar fukk ak juróom laataa muy faat faat doomam yéenekaay di ñu xamal ne ak lu mën a xew daal faatoom googee lëndëm na lool ndax ñi ngi wax ne daa xaru waaye tamit la ñu jot a gis moo di ab leetaru tàggoo waaye moom Cheikh Kane moomee amul benn firnde booy xamal ne dafa faat boppam yenn ci dëkkandoo yi di seede ne nag ca guddi ga sax amal na ay zikkar l'observateur yi yéenekaay di ñu xamal ne mbir mu doy waar benn waay boo xam ne dafa amoon soxna ba pare jël geneen jigéen yóbbu ko ci benn auberge ñu nekk ci la neex waaja mujjee faatu mu nekk nag lu doy waar